Heavy Mess.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 ñoom ñaar nag ci seen jàppante googu kenn ku ci nekk dafa gaañ moroomam ndax dañoo yoroon ay arme blanche <laughs> ma ne bàyyi leen njoxor njaay ngeen génne arme gardien bi nag nee nañ dëgg la jëlee na ci ay gaañu-gaañu waaye ki ci gën a gaañu nag moom mooy mason bi ndax gardien bi ci wet gi la ko doon bot gi arme blanche bi mu yoroon gannaaw ba ñu jàppante seen jàppante gu metti googu ci la ñu alerter gendarmerie brigade de proximité bu ndindi ci la ñu ñëwee nag gardien ba ak blessure am dal benn toilette tëj ko dal di fay nekk ak ay gaañu gaañoom policiers bi ñu waree ba sonn gisuñu ko ci lañu ko laqartee ci biir toilette yi waaye nañu ko fekkee ci biir toilette yi moo doy war ndax dañu ko fekk mu daanu ndax boobu jam-jam yi sonal na ko ma ne xaw tuut musiba am gendarme yi bi ñu ko loqatee ci douche bi directement ma ñu ko yóbbu l'hôpital gannaaw ba ñu leen faje nag ñoom ñaar muy gardien bi ak maçon bi fi mu ne ñu ngi leen di toppee li naan épousé blessure volontaire réciproque ay waay réew mi bàyyi leen xeex moo tax ma ne jàngoro ji dal mi moo gën a graaw korona la wax xale bu jigéen bi nag li mu def ëpp na ndax dafa bëmax maamam bu jigéen mu daanu hanche bi dal di damm ma ne kii de xanaa bokkul ñi maamoo maam mbir moomu ñu ngi ko doon atte ci tribunal flagrant délit bu ndakaaru maam ji mu bëmax ba hanche bi damm mu ngi am lu toll ci quatre-vingt-dix ans ay waay urgence la mu jee bañu opéré ko waaye maam tam tamit bàyyiwul mu sedd dee ndax gannaaw ba ko sët ji defee jëf ju ñaaw jooju maam uti certificat médical la def dal di plainte sët bi ay waay xanaa maamoo maam daa jeex ci réew mi ca kanamu yoon nag assis di sët bi nee na li mu mënul woon supporté ci maamam mooy saa bu xëyee rek day xëyee tifaare ay saaga nday yaayam ah du moo ko jur kay dëkkee ko tifaare ay saaga nday yoo xam ne guddeeg bëccëg da koy dëkkee waaye ma ne sa ci moo ko jur ma ne xale boobu xanaa dafa xamul ni mag lu mu def yàlla bal ko ko mag buur la xale bi tekki ne bés ba muy ba max maamam mu daanu ans bi dàmm maam ji dafa jël ab mbol de ci biir néeg bi na da ko koy dóor naka noonu na ci la ko ba ma xeemu dal di daanu ay waay magum quatre-vingt-dix ans juge bi nag ne ko yaakaar nga ne li nga def baax na xale bi tontu ko ne ko maam ji ci boppam dafa doon mën menacer yaayam ne dina jël bakkanam ma ne xale bii daal na waat ma ne nag xanaa xuree feeñ ci Sénégal xuri daanu na ca teen baa xuri Sénégal ma ne xale bi moom wayu feeñ na de bu max sa maam mu daanu ba ange bi damm moo taxit xurime daanu na ca teen ba waaye xurimi moom teeri na ca kaso ba ndax gannaaw ba ñu ko àttee daan nañ ko juróom benn weeri kaso yoo xam ne benn bi dana ko tëdd laa wax waaw góore waay ba max sa maam mu daanu ans bi dam juge bi teg ci nag alamaan sët bi lu toll ci un million joo xam ne war na koo dampee maam ji ma ne nag maam xanaa boo jotee ci un million yi da nga maamoo sët da nga maamoo sët ko ci waaye maam ja teg ca nag xale buy ba max maamam damm kay du ma ko sëtoo ndax damaa bëggoon a rey ay waay dee leen maamoo seen maam yi magum quatre-vingt-dix ans nga daal di koy bëmbax mu daanu ba si dam dafa mel ni réew mi baaxam yëpp a ngi jeex ba beneen